gouverneur bu diwaan bu njaareem di góor gi mbay nag daal dina jiite li nga xam ne moo di comité régional de développement bi jëm ci waajtaayu màggalu Kazu Rajab édition 2020 ñu war ko amal ñaa fukki fan ñaar ci weeru mars bi ñu dëgmal ki teewaayu ngi délégation bi waa kër Serigne Fallou Yabal di Serigne Ahmadou wi Mbacke ak mboolem chef de service yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci diwaan bu njaareem am na itam ay kilifa yu jógee ci dëkk bu sell bi di Touba ngir mbir mi lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram ndox akuk cet nag daal dinañ ko fay gën a fësal ki yor ki yor kaaraange gi fas ke nañu jàpp ci ba dara du manqué ñu yor wàllu wér-gu-yaram na ma ko wax dafa mel ni màggal ren ren gi seen màggal la dégg ngeen docteur euh, médecin yi joxe ci ay tegtal médecin chef district bi joxe ngeen dégg ngeen docteur bi nga xam ne moo yore euh, aussi région médicale lu jëm ci màggalu gën jamono ñaareelu xalifa sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul li Serigne Fallou Mbacké nag ngir bis bi lépp daal di mën a yemb chef de service nag nee duñu bàyyi lenn loo xam ne nii war nañu koo jël te jëluñu ko ngir bis bi daal di mën am ab lu jëm nag ci mbas mi nga xam ne moom moo am ñu koy wax coronavirus wala covid 19 nag nga xam ne moo di gouverneur yëkkati na ay kàddu di fësal daal yan matukaay la askan wi war a jël waaye tam lan la askan wi wara a ngir jàngoro joojulee kenn du ko fa gis comme loolu ñëw nañ ci bu baax fàddiku fàggandiku nag bi ci ëpp solo ci lu mel noonu bu amee mooy set mooy set setal ku ci nekk jël sa matuwaay foo loxo di set liñ la ci tegtal maanaam booy tiseel yi booy sëqët ni nga war a defee nekk ci mbooloo mi fexe ba doo kenn kenn du yaakaar naa ni ñoom deeñ def émission ci rajo yi deeñ nit ñi service d'hygiène ci dinañ ci jàpp lu mu war a indi ci ay matuwaay ci ay ndap yi ñuy raxasoo dina ko def euh, maire dégg ngeen li mu fas yéene lu mat 5000 juróomi junni euh, bouteille bouteille yoo xam ne moom ngay def sa loxo muy dindi microbe yi waa hôpital sax ñëw nañ ndax am nañu lu mel noonu jaaro usine bu nekk foofu xam ne bu ñu leen ko gungee tuuti rek bu ñu leen gungee tuuti rek. ñu defar ko defar bu mucc ayib ki nga xam ne moo di sëriñ Ahmadou Badawi Mbacke nag yëkkati na ay ñaan di fësal li nga xam ne moom moo di feebar boobule yàlla daal di ci musal mbooleem askanu réew bu Sénégal waaye daal di ko jële ci àdduna bi daal di cay jaare sax wax leen ci ay xaar baax yi sëriñ Fallou Mbacke ñaan nag loolu yi nga xam ne sunu borom defal defal na ko ko tanu deñ mu defal na ko ci lii nga xam ne moom la ñuy tin ci àddina bi moom la ñuy ci réew mi ndax ki tax ki amoon xew-xew màgg boobu ci bis bi muy sallallahu alayhi wa sallam mooy rasulul alamin yemul ci jullit yi de waaye yàlla daf ko yónni ci bindeef yi kon yërmande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bindeef yëpp la war a matal kon ñaan gi na matali àddina bépp fépp foo xam ne jàngoro ji dugg na fi yàlla na ko fi yàlla jële tam bañ faa jël fa tam bañ faa duggati foom tolloon na fa yam yàlla bu mu yokkati ci barkeb al isra wal mi'raj ci barkeb sallallahu alayhi wa sallam ci barkeb Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ci barkeb Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moom la fàttaliku ci jotaay bi. ci ab fàttali màggalu Kazu Rajab édition 2020 daal di tombe rek li nga xam ne ni moom mooy feebar bi lëmbe jamono te yenn ci ndaje yi ñu koy faral di teral rawatina ndaje yi nga xam ne nii mbooloo mu takku dafay nekk terewul nag ay mesures yu am solo jëm ci wàllum cet ak fagaru daal dinañu koy jël ngir bis boobu lañu ñu daal di koy mën a amal ci anam ba mu gën a mucc ay